donc comme ni nga ko waxee rek noonu la demee Modou ak Balla ñoom bokkuñu. bokkuñu. Uh-huh. ni ngay préparé ak Modou. Uh-huh. c'est différent ak ni ngay préparé Balla. Balla Modou am kàddu bu mu dugal. Mm-hmm. bëre booy Niang moo gën a difficile bëre Ama yow loolu. loo ci ah, loolu ñaar ñaar nga koy jàppee da nga koy jàppee nii. <laughs> mun na ko wax parce que dëgg la ci moom da nga koy jàppee ni tamit waxu mbër rek daf lay daf lay. kii daal nelawal ko waaw mooy may jéem nelawal rek mais xam nga ñun tamit ci keppaaru làmb lañ màggee. mais ñaar yooyu boo ci gën a. nelawal ñu. non non loolu gëmuma ci dara moom li muy wax gëmuma ci dara man samay wax laa gëm quoi. Ah? comme ni nga waxee man ci làmb samay wax laa gëm. ak ah. li ma indi laa gëm. mais waxu mbër bi moom góobu. mbër bi waaw waxu mbër moom jëkkee dégg ma ne est-ce que kii nelawul. waaw waxu mbër ah, am na ñu bëri nee noonu li mu wax dëgg la. ma waaw waaw dëgg la ci moom ak ñooñu. <laughs> waaw man góobu loolu <laughs> man li ma gëm rek mooy li nga xam ne moo ne ci man. moo ne ci yow nekk suma bët nekk suma xel yow yow yow yow voilà yow léegi yow xam Modou loolu la wax. Mhm. bëreeg Balla Gaye bëreeg Modou Lo bu gën a yomb. waaw bëre bëre bëre bëre xam ñoom ku ci nekk dafa am say qualité mais presque boo xoolee ku ci nekk say défaut waaye ñaa pour pour. waaye maa foofu damay ñëw fi après ma tëj foofu. <laughs> dañoo am ay qualité. Mhm. mais boo xoolee ku ci nekk défaut kii mooy qualité kii. défaut mooy qualité Modou. Mhm. xoolee boo xoolee Modou boo xoolee Modou la. Euh. ah, ah. Modou Adel la du fooy entraînement dafay entraîné carrément. ne fonk na entraînement néewul doole. Ah. yaa ngi dégg. Ah. boo xoolee dafa am sañ-sañ boo xamante ne na ñëw indiwul forme sax mais sañ-sañam na ko may victoire ci làmb. mën na ñëw ba indiwul forme ci làmb. muy sañ-sañam may ko mu mu daal dem. moo gën mooy gën a libéré combat. mooy gën a libéré Modou nag dafa nekk koo xamante ni moom yow boo booy bëree moom da ngay xam ne yow mbër bi ngay bëree dafay entraîné du fooyee làmb fonk na làmb te ñemewul daanu. xam nga mbër moom bu ñemul daanu kon kon kon sama combat ma neex. ma daanu. Hmm. toog naa cinq jours génn am neex. sama premier defar cinq jours. waaw waxuma ne génn ma sama ëtt sama néeg. Hmm. génn ma xam nga lan laa la critiqué woon yaa ngi koy fàttali. la ma la waxoon fàttali hmm. ba mu la daanee. waaw li ci ëpp yow yaa daan sa bopp. da nga duggee ca làmb ja la. waaw da fooye woon làmb ji. da ngaa wóolu woon sa bopp de. de jeunesse bi dafa dafa ma jiital carrément moo daanoon moo daanoon Eumeu seen ci Kaïré. foofu foofu pour wax rek. Fadam xam nga tey